bismillah yan mbooloo yow mi yor sa sànce bëgg karole sa kër ba muy nes na si gaawal gaaw seet si waa Taïf Karo ñi ngi fii jàkkaarloog hôpital CTO nee naa la ay karo ya nga xamante ne bii du os du furi da ngay fomp muy gën a rafet fii dong la ci Taïf Karo ji bi Bamba mooy gérant bi karo yu baax yépp fii la ñu joxante rendez-vous ci suñu biir place bi nga mën fi fekk karo italien espagnol wala indien yu ci mel ni ay grès poli 60 60 wala poli 1 mètre 20 nga xamante ne bii pour salon la salle de armoire ay carreaux décoration pâte de verre yu amul fenn ay carreaux faïence pour cuisine wala toilette lépp loo soxla ci wàllu bagget am na fii yow mi soxla ay carreaux parquet gaawal gaaw ñëw fii ci Taïf Carreaux andi leen ay chaises anglaises yu bees tax ya nga xamante ne bii ay nouveau model la wax naa la lépp lu jëm ci wàllu sanitaire Taïf Carreaux moo ci mën ay carreaux grès salam grès émail wala grès poli 60 60 ay pâte de verre ba ci ay plinthe ay marche escalier wala contre marche ay carreaux espagnol 60 40 40 wala 50 50 nga mën fi fekk Jibi Bamba mii nga xamante ne bii spécialiste la ci wàllu jaay karo mbokk yi nee naa la roy du nuroog pire te ki mën ak kiy jéem bokkul jëlal suñu numéro téléphone jokkool ak Jibi Bamba ci 77 745 76 88 ak Taïf Karo seen jafe-jafe ci wàllu karo jeex na tàkk. alhamdulilah ñëw leen seen revue de presse lamb alxamesu tay ji la gën a fës ci jeudi bi coach Lato di coach bi ki xam si nii moo di Franc ma ci combat Franc bi mu jëm ci digganteem ak Forza ma xam ne préparé naa ko waaj naag waa écrit bi wàcc tous les plans lépp loo xam si ni kuy dem guerre da koy yóbbaale rek bu keroogee dana ko yóbbu ñu dem ci drapeau chef de l'état bi foofee ca diwaanu Saint-Louis du Sénégal suñu lam mu ñu xamal ne équipe yëpp waaj nañu ku ci nekk armé nga ci cinq catégories suñu lam mu ñu xamal ne nar gis drapeau chef de l'état bu riis drapeau chef de l'état bu neex rawatina compétition par catégorie suñu lam mu ngay ñëw ci huit gala yu nar am ci diggante Dakar ak Thiès après linga xam si ni moo di drapeau chef de l'état bi dinañ am combat yu neex ci diggante fii ak Dakar ak Thiès suñu lam mu ngay ñëw ci lamb yooyee nar caa am bokk na ci face à bu rëy bi nar a am niki tey jii ci diggante Albury ak Jara 2 daañu def seen face à face bu mujj laataa ñuy laale le 18 mai tey jii ca arène nationale ba ci suba gi lay doon suñu làmb ma ngay ñëw ci Eumeu Sène ak digganteem ak Sa Thiès ki nga xam se nii moo di Balla Gaye keroog mu leen di recevoir palais suñu làmb mu ñuy xam ne dañ koo sandi zone Sa Thiès ko féete côté bi Balla féete ko côté bee ñu ñëw ci liy xew la 16 ñu ànd ci ak Mor Parcelle borom Diouf production ca combat préliminaire yi ci am ñaari xale Papa Balde Senior ak Ngolo bu écrit Grand F mbooloo suñu làmb ma ngay ñëw ci maam góor gi Njaay di ñu xamal ne keroog yëngal na pale donte ci chaise roulante la toogoon waaye waak bàkku na fa xam se ni moom la ñu ko xamee suñu làmb ma ngay ñëw ci Ousseynou Ngom borom Bousnakh production jëm ci combat ci diggante Caatu Kayre ak Cheikh Ñang bootal na ko spécial bu am solo ci diggante Boy Gueye bu Caaroy 44 ak ki moo di Alma bu écrit Kër Mbay Fall suñu làmb mu ñu xamal ne nar a nekk tàkkusaan gu rëy ñu ñëw ci lu rëy lu a am foofee ca Fatick ca stade Ndiaye Ndiaye suñu lam mu ñu xamal ne waa Ndefleng ñoo def seen retour le 27 mai lay doon ñu nar faa organiser lu am solo foofee ca stade bu Ndiaye Ndiaye suñu lam mu ngay ñëw si champion bi di Lagros suñu lam ñu xamal ne palmarès fi mu toll nii muy toll ci huit victoire ak six défaites waaye fi mu toll nii ñaari ñoo nekk ci kanamam digganteem ak Moussa Ndoye ak digganteem ak ki nga xam si ni moo di Mame Balla ginnaaw loolu ñu sant leen gërëm leen jox leen dig daje ni ki suba